non dama ñëw sànq pour gis si prison bi. Mhm. parce que bi ñu jógee tribunal dañu ne que kayit kayit bi koy génnee prison maanaam oh. mainlevé mandat dépôt bi jóge na tribunal signé nañ ko mu ngi mu ngi dem prison. Mhm. loolu moo tax ma ñëw fii pour vérifier parce que aussi souvent ñoom kayit bi mën na ñu téye nit ki ba ngoon ba guddi ba ba ko ci sutura ak yooyu bañ ñu médiatiser ko bañ caméra yi bare journalistes yi xëy na loolu moo tax man loolu laa doon vérifier mhm. ndax pour seet aussi ndax conditions yi muy génne moom amul observation particulière ci dernier jour yi parce que Diome yéen ñëpp xam ngeen ni yaa trois quatre jours génne na benn courrier bu lëmbal euh, wër àdduna bi yëpp li ciy wax mbébét yooyu conséquence yi ñun xamuñu ko li mu indi xamuñu ko à son niveau il fallait kon ñu vérifier conditions yi muy génne ndax normal na on nous a génn na sans aucune entrave amul benn problème bi juge bi joxe ndigal parce que procureur bañul bi yoon donc ñoom kayit bi ñëw na def nañ li ñu doon def li ma nag comme da nga ñëw visite nag pour gis Guy mari Sagna waxtu bi mënatoo ko gis ndax Guy Marius Sagna bokkatul ci suñu effectif détenu bàyyi nañ ko ñibbi na wasalaam